sunu bës TV jàmm mbokk internet yi topp chaîne bi di suñu bës TV moom Bougane Gueye Dany ma ngay woy nag di boole kii di njiital réew mi président Sall ak kilifaay diine yi gannaaw nag ba mu jugee foofale ca Touba niki tey jile nag daal dinañu koy nime ko foofale ca Cheikh Mahi Niass moom nag daal dina koy fàttali rek situation yi nga xamante ni ci la réew mi toll nam moom kilifa gi moo ñu gën a xam situation yi réew mi toll waaye nag moom Bougane Gueye Dany itam ci ay kàddoom nee na kat Sall mi ngi wër diine yi di fa wax rek lu jëm ci mbirum force occulte ak terroriste ak di président Sall dafay wax di dafay wax li nga xamante ni dafa juyoo ak li am moom Bougane ba tey ci ay kàddoom daal dinay wax ni kët moom mi la day woote jàmm waaye nag jàmm joo jile ci ay mbaggam la aju moom président Sall ba tey moom Bougane itam fàttewul benn pion lii di carton rouge ba nga xamante ni moom la génnee ndaxte kat daal dina fay génnee lii di carton bi moom Bougane Gueye Dany gannaaw ba mu jugee ca Touba ki tey jile nag daal dinañu koy nemmeeku foofale rek ca chaise Cheikh Mahi. Sunu